parrainage bu am solo la amal ak euh, le président de la république euh, ci euh, ba mu yoree nguur gi ba léegi gis nañ ne également njiitu réew mi ñu bëri ñu ngi koy waxal ne 2024 bëgg na sampaan dëndëm yéen ngeen daje wax ne bëgg ngeen samp seen am candidat en tout cas ci atum 2024 bi ñu jëm ndax loolu mën nga ko dëggal ak ban jàngat man nga ci am xam nga loolu du lu bees ci ci AFP ñun d' dama bëgg fàttali ne 2014 euh, boobu APR sax tànnagul loon président Macky Sall comme candidat. Mm-hmm. Euh, l' AFP avait déjà porté son choix sur le président de la République parce que par cohérence politique nit ki boo ànd ak moom ngeen àndandoo liggéey mu am lu mu la dénk ci ay cër. Mm-hmm. ngeen egg ba ñu war leen a xayma. foog naa ne ngor éthique ak sax lépp loo xam ne euh, lu diine tarixa nangu mm. mooy nga ànd ak moom ne ah kii li mu def lu baax lépp ànd nañ ci moom waaye lépp lu ciy safaan tamit dañuy réclamer suñu part ci ci loolu donc c'est la cohérence politique naturellement l'AFP aux prochaines élections mais aura un candidat mais bu ñu fàtte ne ñun ñu ngi ci benn coalition dañu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar AFP actionnaire la ci c'est-à-dire du du loo xam ne dañ cee ñëw ñu boole ñu ci dañu cee nekk actionnaire nekk ci membre fondateur donc euh, loo xam ne yaa ko moom sa yëfi bopp foog naa ne doo ko sànni non dañuy benn bokk yaakaar bi nga xam ne ci la ñu bokk dana am candidat bu amee candidat mais nationalement ce sera le candidat de de l'AFP on mu nekk candidat ñëpp mm-hmm. même mu nekk candidat sax ñoom ñoom Cheikh ñi nga xam ne mais dañu nekkoon ñun ci ci benn bokk yaakaar loolu tam luñ lu ñu war a fàttali la que ni euh, euh, c'est aussi au même titre que nous mais des membres de de Benno Bokk Yaakaar parce que Cheikh bi Benno Siggil Sénégal la bokkoon. comme ñun euh, Moustapha Niass moo nekkoon seen seen seen candidat. donc euh, voilà war nañoo mën a dajaloo te àdduna bi moo wone ne les échappées solitaires amul sens dama bëgg boo ma ko mayee. mu revenir tuuti ci li Cheikh wax. Mm-hmm. xam nga président daje ak Khalifa Sall mais où problème. <laughs> y' a pas de problème le président rencontre combien de Sénégalais par jour ñii directement ñii yóbbante na ay nit ci ñoom ñii mi ngi leen di woo téléphone c' le président de tous les sénégalais mais mais boo boo gisee coow li xëy na cadre bi ak contexte bi moo tax ñuy wax. noo xam nga noo xam nga non parce que xam nga nit ñi des fois. Mm-hmm. dañuy jël benn wax jox ko empleur bu mu amul man jeune ne gère pas le protocole ni la fiche d' audience du président de la république. Mm-hmm. mais man su fekkente ne président rencontré na Khalifa j' applaudis su ko rencontré gul lu war a am la man loolu laa jàpp Khalifa est un sénégalais valeureux. Comme tous les autres Sénégalais, avant-hier, on était en conclave. Il est venu respectueusement, chaleureusement nous saluer. bi may nuyu sax ma encore daan grand dinaa la seet si seet si bi yëpp c'est Buuruf man man li ma gëm mooy jàpp naa ne mais dafa war a indi sa contribution ci liy tabax Sénégal. mais attends euh, euh, Khalifa Sall bu gisante secrètement ak le président Macky Sall gisoo ci benn problème yow. xam nga les les audiences du président de la République amul euh, secrètement visiblement benn la. tey jii président Fatou Abdou sañ na la woo ne la dama lay recevoir vingt trois heures hmm. nga ñëw mu recevoir la wala dama lay recevoir seize heures président ñi muy recevoir ñëpp du ñooñu la ñuy gis euh, non dafa am dafa am dafa recevoir Khalifa Sall Ousmane Sonko ak presque leader politique yëpp ñëpp dégg ko en communiqué bu ñëpp jot bu ñu demee tey li am ci diggante Khalifa Sall ak président Macky Sall mbiru politique bokk ñu parti di ci jot a jaar est-ce que ñi bokk ci parti bi sénégalais yi bu fekkee ne réunion boobu ñoom ñuy weddi am na Euh, d'autant plus que ba tey amaguñ ci lu ñu leer kaddu la ak kaddu bu ko fi dindi est-ce que loolu wax na ci jamono ji nga xamante ne xam nga pour man lan moo lan moo warul de s'étonner que le président rencontre Jean-Paul Houcquet Khalifa Sall est un Sénégalais par tant d'autres en plus de euh, en plus de mu nekk Sénégalais Khalifa quand même est un leader politique un leader politique qui a son opinion président sañ na taxawal benn mbir ne xaaral ma laaj Khalifa xaaral sax ma laaj Cheikh Gueye mi nga xam ne Khalifa mooy kilifaam pour man il faut qu'on arrête sa terrorisme intellectuel c'est-à-dire président daal moom du ko bon kenn waru koo jege moom ku bon la waru waruñu ko jege ku ko jege non président sañ naa waxtaan ak nit sans pour autant que kooku muy waxtaan mais def de la compromission wala jaay boppam il faut que tamit ñu génne loolu ci xelu askan wi président ni muy rencontrer xalif généraux yi di ko rencontré footballeur yi di ko rencontré ñëpp war warut a mën a rencontré. bu ñu la déggee daal Sénégal warut opposition quoi. non mais oppo voilà Abdoulaye Wade dugg na ci gouvernement ñaata yoon. yenn est ce que est ce que léegi un opposant dem rencontrer le président de la république dafa tax nga bokk ci gouvernement mais non ñun je me rappelle Abdoulaye Wade bi mu nekkee président Moustapha Niasse ak ñoom Tanor ak ñooñu mais Abdoulaye Wade convoqué na leen ñaata yoon jël seen i xalaat sur des points précis est ce que dafa tax ñoom. ñu renier seen engagement politique mais non ku ci nekk yaay def sa choix dans la vie mais il faut pas que li ma d'accordul mooy sa clivage bi ñu bëgg indi euh, Macky Sall euh, du ku baax ñi mu àndal duñu ku baax ñun ñoo baax parce que ñun ñoo nekk ci opposition non. mais d'accord soo gisee mu xaw a choqué mooy gis nañ fi ab leader politique euh, toog ba mu neex ko ñu annoncé ko ne ba léegi mu ngi ci camp présidentiel muy Idrissa Seck mun naa ko cité te ba muy def conférence de presse wax ne waxtaan na ak moom lu toll ci fukki weer ak juróom lu Sénégalais yéegul jékki-jékki. quoi qu'on puisse dire am na sénégal yi nga xam te ni demam bett na leen loolu aussi bu ñu toogaatee ñu dégg ne xalifa Sall gisee nag président Macky Sall est-ce que itam du gën a ëlëm xelu askan wi. damay dégg olof mu ne noo ko def doo gis rek noo ko waxtaanee ko jiitu c'est-à-dire fii par exemple ah di nga topp soxna di ko labat ay ay ay weer bala nga kaa yëg ñu ne la ah. ñu ngi takk diw tey. loolu nga jël mettre exemple yooyu pour vous dire une chose. on parle d'une république ah l'état c'est la somme des privés. c'est rien d'autre. c'est la somme de ce qui se passe partout ah. loolu mooy état li ngay fayeeku li ñuy fayeeku li ñuy jël jox mhm. président ne ko géral ñu suñu suñu Sénégal. Mhm. le président a le droit de parler à Jean ou à Paul dans le secret de son bureau. ou est le problème il a des conseillers pour ça. mais au delà de ces conseillers ñi nit ñi xam da ngeen foog ne président ñoo rek lay waxal président du wax ak conseillers kese sañ na wax ak n'importe qui warut a wax ak Idrissa Seck qui a quand même pesé aux élections un million mais Khalifa Sall qui a quand même maire de Dakar warut a mën a jël avem mais pourquoi bi mu ubbee dialogue sur la Covid-19 ah. mu ubbeeku il a même reçu des rappeurs le président de la République pour te dire à un moment donné ñi nga xam ne sax on était maanaam jege ko on n'a mais à la place de ñun il a reçu par exemple des des des, donc loolu aussi il faut que nit ñi may ko loolu que am na sañ-sañ boobu parce que daam moo jiite réew mi d'accord alors waaw Fatou waaw bu ñu ñëwee rek sànq mi ngi woon ci euh, candidat APR nga wax ne euh, c'était un peu nuancé bi ngay wax ne euh, tey mën nañu taxawal candidat bu coalition benn bokk yaakaar Pape Sagna Mbaye candidat parti AFP la wax en 2024 alors aujourd'hui ndax parti bi nga xamante ne des na organisation ndax gëj nañu def renouvellement ndax jeunesse bi nga wax ne ci nga bokk daanaka nga jiite woon ko jeunesse li nga xam ne ñoom ñooy AFP at yi weesu na li nga xam ne mooy mooy jeunesse bi te boobu ba tey yow yaa ce que d'abord parti bi taxawal na jàppale organisation bu war a mën a tax mu dem élection xam nga parti baa ngi dox AFP dafa traversé séquence c'est-à-dire bu kenn xaar AFP comme AFP parti d'opposition bi mu nekkoon on dans l'opposition on n'avait pas de courroie de transmission avec le pouvoir suñu suñu ligne moo doon taxaw ci presse bi taxaw ci mbedd mi. et ñëpp gis nañ combat yi fi am de 2000 à président Moustapha daanaka ma nga woon ci kanam. Mm-hmm. d'ailleurs assises nationales yi bokkoon na ci borom kër boo ko yeewoo boo ko njëkkee yeew da ngay tëddaat ba mu yeewu sinon doo ndekki ce que tu viens de me dire que ni Pape Sagna Mbaye moo ko wax que ni l'AFP aura un candidat l'AFP structurellement ne s'est jamais prononcé ci loolu jamais. l'AFP donc c'est c'est c'est mon langage que lui. non l'AFP xam nga une candidature. Mhm. structure parti bi moo koy désigner. Mhm. la candidature bi nga xam ne personnel bu war a jógee ci AFP kooku waxaguñ ci cependant la candidature de principe qui devra être la candidature de Benno Bokk Yaakaar oui parce que dañu nekk ci appareil Benno Bokk Yaakaar. suba donc yéen même 2024 seen candidat mooy candidat Benno Bokk Yaakaar mais pas le parti APR. mais je mais dire c'est-à-dire la cohérence aurait voulu quoi bu fekkente ne ñun AFP. dañu nar a am candidat 2024. Hmm. le problème kay mooy nañ gën a jàkkaarloog Macky Sall on ne peut pas aujourd'hui avoir la deuxième institution du pays avoir des ministres dans le gouvernement des directions etc etc et nous dire que au moment du bilan on va quand même nous renier c'est-à-dire sénégalais ñun ñu ngi woon ci biir kat ci togg bi waaye li li ci. sax xorom bi ñu engagé la am candidat. musuma la wax loolu non musuma la ah, wax mais li ñu mën a comprendre. mais sa candidat li ñu mën a comprendre mooy bu fekkee ne AFP je parle pas de la coalition Benno Bokk Yaakaar je parle de AFP le parti bi nga xam ne Moustapha Niass moom moo ko daal di jiite ndax noppi ngeen pour am candidat 2024 ne du ngeen ko def ndax vous êtes content. musuma la wax loolu dama la wax ne la. lan nga wax non le candidat de l'AFP sera le candidat de la coalition dans laquelle nous li ma wax ni lu leer nañ laa wax candidat AFP mooy nekk candidat ko mën na jógee AFP mën na jóge APR mën na jóge PS mën na sax jóge taxawu Sénégal bu dee ñoom ñëw nañ ci biir waaye le problème. donc candidat mais aujourd'hui aucun parti pris individuellement ne peut gagner les APR kese kese kese bu demee suba élection du gagner APR la laa la de le parti du président kese bu demee suba élection du gagné à fortiori d'autres partis c'est une réalité bu nga xam ne moo nekk Sénégal d'accord en tout cas Fatou nuance boobu ngay wax <laughs> war nañ ci mën a gën ko gën koo yaatal parce que itam euh, euh, sénégalais ñu ngi ciy posé la question ñu ñëwaat ci Cheikh ngay Cheikh euh, dégg nañu fi ne Abdoulaye Wade réeréwul ak le président de la République il y a pas eu démenti